li si yéenekaay yi ak Ami Dem Senghor internet yu 5 TV alal ma seeni nopp ma dégtal leen li si yéenekaay yi tolluwaayu mbas meek ay musibaam moo ngi woy di fës si sunu yéenekaay yi ñu door ko ak La Tribune bi ne ñàkkum yar gi moo nekk ci kaw corona bi ndax ba tey jii dajaloo gi ak takku mu masque yi kenn respecté wu ko fële ca Tamba gendarmerie ba la ñu attaqué gannaaw bi ñu tere ay ndaw ngir ñu amal seen match de football waaye la waaye ko feebar bi bu ñu sukkandikoo si le quotidien jeexagul ndax ñetti weer yii di ñëw dina gën a fës gannaaw tabaski bi gàmm màggal ak ubbi tekk daara yu kawe yi di waaj a ñëw wàllante gi moom dina gën a bari ci réew mi docteur moodu Ngom bu si nekk ab mathématicien ci le témoin yéene kaay xamle na ni li ñu nemmeeku ci covid 19 bi bu dakkul ñiy faatu ci mbas mi dina àgg ba ci junni ak juróomi téeméeri doomu aadama fii ak njeexantalu weeru ko décembre mu teg ni lu ëpp juróom benn fukki junni ci ay cas mën nañu fa àgg lu ëpp itam ñaar fukki nekk ci hôpitaux yi ñu leen di faj Ziguinchor nag moom bu ñu sukkandikoo ci le quotidien cas boppam la ndax jamono ji cas communautaire yi ñoo fa ëpp cas contact yi ba tax laas ne Covid 19 bi dugg na bu baax fële ca Ziguinchor ndax fukki cas communautaire ak ñaar am nañu ko ci diiru ko benn fan rek Serigne Babacar Sy di xalifa général des Tidianes xamle na ci Vox Populi nii bu ñu bëggee génn ci mbas mi nañu def ay sarax ak ay ñaan te ñu noppi ngir mën a déppoo ko diine ndax ñenn ci askan wi dañoo dëgër bopp leen jàpp waa grand place di ko déggal ndax bind na ni sarax ñaan tuub mooy ñett mbir yi nga xam ni moom la sëriñ Mbaye Sy Mansour digle ngir ñu daan Covid 19 bi lu doy waar la ñu nemmeeku ca Touba soo su aane ñenn si ay way tawat yu ñu ne dañoo am opp Covid bi. ñoo lànk ne kenn du leen faj yéenekaay bi ne lu tolloog fanweer ak juróoma ñett ci ñoom nee nañu may ci jaww ji kenn mënu leen a tëggat lii quotidien moom masque yi la daal di fësal ci xëtam bu njëkk li mu bind rek mooy masque yi am na lu làqatu ci ginnaawam ndax jaaykatu masque yi ñoo ngi doxle bu baax a baax lu ñeel virus bu bees bi di troisième mandat ci Afrique la ñuy àdd ci du quotidien xëy fësal nataalu ko ñett ci suñu njiitu réew yi muy bu Côte d'Ivoire bu Guinée ak bu Sénégal yéenekaay bi teg di troisième mandat waaye la tribune xamle na ni Macky Sall cas suspect la si waaye nanguwul kenn ku ko testé. réew mi quotidien ne Guy Marius Sagna mooy virus bu nekk ci nguuru ko Macky Sall bi ndax démb rek yoon tegaat na ko loxo ba noppi daal di koy bàyyi wax vox populi di ko dëggal ndax fësal na ni Guy Marius Sagna police daka pamti pamte ba noppi teg ko loxo laataa mu koy bàyyi l'observateur andil ñu ay xibaar yu bees ci xale bu jigéen bu ñu ne moo am opp covid 19 bi te ñu àgg ci kawam ca hôtel Novotel li examen gynécologique bi wane ci xale bu jigéen bi di ngeen ko fekk ca page 9 bu l'observateur libération doole di ñu si xamal ni ki ñu jàpp ni moo jëf ñaawteef yooyu yoon teg na ko loxo waa GFC ñoom li ñuy sàkku si njiitu réew mi mag Macky Sall si l'exclusif yéenekaay mooy ngir ñu dàq ki nga xam ni mooy Abdou Karim Sall ñu jeexal ak sunu làmb yéenekaay bi xëy fësal nataalu ko Modou Lo bi teg ca ni jamono ji moom mi nga xam ni mooy buuru làmb ji moo ngi ci forme bu baax a baax te it moo ngi respecté ay entraînement wam ba tax yéenekaay bi ne Modou lii mooy secret Pape Mbaye si biir yéenekaay bi ne Modou Lo duy tricher liggéey liggéeykat bu mag la. ci la ñuy ndar keppee li ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.